mbokk yi le préfet de Dakar mi ngi nii ay bale bale bale bale bale bale bale gon na arrêté ay gon leen bale eh, bale leen ko bale ko gon leen bale leen ko ay gon ay gon ay gon no ki kan mbokk yi lépp de Dakar gis ngeen ko ñëw na ànd ak le préfet de projet du président Ousmane Sonko pour ñu dem mbokk yi yéen a ko gisandoo le cortège du président Ousmane Sonko a été attaqué par la gendarmerie alors que c'était un cortège pacifique. waaw waaw gars yi ñu jënd ay vinaigre. waaw waaw voilà Li la gars yi jeun a Thank you. Yaram bi loxo yaram wala ñu romb noonu wala mo bëre ñoo ci bu ñu taalee dama dem bu sule après mu retourné ñëwaat

en ce moment ñoo ngi dund ay violence yo xamantene ne kenn xamul lu mu doon yow ko gisando lolu mo waral man ak sama ki nga xamantene modi sama cameraman bi di jël live bi ñu rero won ñu rero won waye ñoo ngi ni jakarlo ak ñi nga xamantene ñoy tak der yi ndaw ñi ñi ngi ni jakarlo ak ñom tak der yi bak ñoy imposer yor wu ñuy jaar mais ndaw ñi nenañu lolu ñom duñu ko nangu ndaw ñi nenañ ñom lolu duñu ko nangu ndaw ñi nenañ ñom lolu duñu ko nangu bëgg imposer fu ñuy jaar manam li ñuy éviter rek li ñuy éviter rek mooy fexe ba Ousmane Sonko bañ a jaar lépp loo xamante ne xaw na jege université ngallaawaay lii kenn mësu koo gis ngallaawaay kenn mësu a gis nit koo xamante ne dañ laa ko képp ñu ne la nii ngay jaar ñu ne la looloo fa jaar jaay la doole sànni la lacrymogène gaañ say ñoñ tey lii la Ousmane Sonko di subir tey lii mooy li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di subir ñoo ko gisandoo police mi ngi door ay lacrymogène police mi ngi gaañ ndaw ñi. police mi ngi leen di jaay doole lii yëpp nag sous le magistère du de de Macky Sall lii yëpp nag ci pouvoiru Macky Sall lii yëpp ci pouvoiru Macky Sall ma d'ailleurs ana organisation internationale yi ana organisation yi nga xamante ne ñoo ngi wax ci wàllum ana organisation internationale yi ana organisation yi nga xamante ne ñoo ngi wax ci wàllu droits humains ana ana loo tey jii nii seetlu nañ ko ñoo ngi sànni ay lacrymogène may laajte rek ana organisation yi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy wax ci wàllu droits humains ana organisation yi nga xamante ne tey jii nii li leen ñor nee nañ yéeyaay mooy nit ñi am jàmm tey li ñu seetlu mooy fii jàmm amu fi te jàmm gi li ñu ko xañ mooy Ousmane Sonko mu bëgg a dem wuy ji képp ñu koy jaay doole jàmm gi li ñu ko xañ mooy Ousmane Sonko tey jii nii gis ngeen lacrymogène yi yi nga xamante ne ñu ñu koy dóor ñu ñu koy dóor ñu ñu koy dóor wax dëgg neex yàlla lii doy na waar trop trop trop trop trop te mooy li fi am moo tax may laajte rek ana organisation yi nga xam You don't know. Suddenly, it's like a cooking vinegar. yéen ko gisee ne la gendarmerie dafa am mbooloo bi dafa mbooloo bi dafa pacifique. léegi am na vinaigre anam.

dafa mel ni li ñu bëgg mooy ñëw jël ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko dafa mel ni baare nañ yoon yëpp tëj nañ ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko tey jii nii Sonko mënatul a dem mënatul a arrière ñoom ñu dóor ay lacrymogène du ñu jaay doole ndaw ñëpp ñu ngi gis lii waaye amuñu pexe parce que Ousmane Sonko moo leen ko jaral tey jii nii lii mooy li nga xam ne moo am fay fii ci Mermoz Tay mercredi 3 mars 2021 président Ousmane Sonko di président Pasteur di honorable député du élu du peuple li ko ñor moy Sénégal ni mu jakar lol ne ko di fa amee di jaay doole fi bëgg jaar ñu ne ko do fa jaar ndaw ñi mu andal ñu koy xoqañal ndaw mi mu andal ñi nga xamne ñong lay def ñong lay tek violence presse bi ñu ko violence bo xamantene kenn mësu ko gis tay ji ni tecc nañ yoon yëpp Ousmane Sonko fi nañ ni cadrier nañ ko d'est en ouest du nord au sud toutes les tous les quatre coins yi nga xamante ne fa la Ousmane ko mën a jaar tëj nañ ko lan la ñu bëgg lan la ñu nam ci koo xamante ne dañ ko woo mu ne day wuy ji bëgg a jaar yoon waa xamante ne fa la bëgg a jaar ñu ne ko di fu amee lii tey jii nii mooy li nga xamante ne moo am ci senegal am na yeneen ñaari oto bit yoo xamante ne ñu ngi ci euh, derrière la voiture du président fees dell ak ay takk der gis nañ ne itam lii daal mooy li nga xamante ne moo fi nekk tey jii nii ñu nekk ci kanam aussi nekk embuscade lu ñu nam xamaguñu ko waaye leer nañu ne tey jii nii ñii am nañu lu ñu nam lii daal mooy li nga xamante ne moo am Sénégal il faudrait que organisation internationale yi xam ko képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci organisation internationale tey jii nii lii mënoo koo rafetlu képp koo xamante ne yaa ngi liggéey tey jii nii ci lépp loo xamante ne nee nga jàmm nga bëgg ci àdduna bi lii yow bu dee am foo bokk ci mbir mii xam nga ne lii war nga ko jël genn metti lu ko parce que li du deug du yoon wa GIGN ñi ngi nonu ñomit it nañu ñew bokku si ñi nga xamantene ñom ñoy wa gendarmerie and ak ki nga xamantene modi commandant bi li yep pour jaay ñu doole ñu and ak yeen sax wan leen li nga xamantene tay tey jii fi am ak échange yi nga xamantene ki ñu gaañ di chef de protocole bu Ousmane Sonko tay jii nii mi ngi koy waxtaan ak ñi